jërë ngeen jëf mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di am mbégte bu baax saa su ne ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen ci Sénégal set saa su si suñu suñuy entretien ñu naan ak yéen di waxtaan ak yéen ci actualité waaye ci lépp loo xamante ni rek bëgg ngeen ko xam ci réew mi tey nag nu ànd ak benn ndaanaan boo xamante ni dootuñu leen ko présenté yéen ñëpp xam ngeen ko mu amoon casquette bu mu soloon ci wàllu théâtre ngeen xam ko ci série yi ah. donc ngeen gis ko léegi mu solaat casquette bu yees muy wàllu politique daal di sóobu ci li nga xamante ni mooy politique waaye fare fi nga xamante ni mooy parti Pastef ngeen xam ko position yu mu jël yu am solo ay clip hmm, ay message muy jàllale ci lépp loo xamante ni rek ci réew mi la muy alaaji rafet moom fas ànd ak tey ci Sénégal set fas ànd ak moom ci waxtaan yu am solo El Hadj ñu ngi lay nuyu dina bàyyi nga nuyu mbokk internet yi. waaw sang bi Madia maa ngi lay nuyu Fall di nuyu waa Sénégal 7 di nuyu waa Sénégal ñi nga xam ñu ngi ñuy seetaan di nuyu suma doomu ndey muy Abbas Fall maa koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko nuyu di nuyu Ousmane Sonko ak Diomaye di nuyu waa Sénégal gépp jërëjëf El Hadj ci nuyoo bi am solo bi dañu koy tàmbalee ci li nga xamante ni moo uh, ubale réew mi uh, muy ay kaddu yoo xamante ne jàpp na ni ay kaddu yu nawul la dundi guleet Cheikh Oumar Diagne di ko yëkkati di ko jëmale ci kilifa diine yi waaye ci tarixa yi Euh, particulièrement yoonu murit nga xam ni ñoom ñoo ci gën fësle ñoo génn di ñaxtu kàddu yoo xamante ni jël na ko nee nañu nag euh, euh, dafa làqu ci li nga xamante ni mooy gouvernement bi di ko def sañ-sañ googu mu am ba làqu ci gouvernement bi di ko def ñu ngi ciy xaar gouvernement bi jël ci seen ay position alaaji rafet su ma la doon laaj ndax kàddu yooyu ndax kàddu yu rafet la yooyu rafetlu wala yooyu la ci mu jugee ci Cheikh Oumar Diagne te fare ci lu mel na parti au pouvoir d'accord ànduma ci wax ji wax ju ñaaw kenn ci ànd mais nag euh, li ci bëri euh, politique di see nekk ci ginnaaw li nga xam ne dëgg yàlla ñu ngi jug pour xeex lépp li nga xam ne Diomaye ak Ousmane Sonko ñu ngi koy liggéey wala seen ay bi ñu xëpp ci suuf moo tax di ci bëri ay politique moo ko lal non li ko lal rek mooy ay noonu Ousmane Sonko ak ay noonu Diomaye ñu si ëpp ñu loo xam ni xëy na ger nañ ci ay nit yoo xam ne ñu ngi génn ci télé yi ak ci rajo yi di wax waaw waaye. Cheikh Omar dañ ko gert bu ma la déggee ndax Cheikh Omar dañ ko. Omar euh, ne ay noonu Jomaay noonu noonu Sonko. parce que seen position rek laa gis parce que dëgg la ma euh, yàgg nañ fi wax sëriñ bi te demewul nii kon am na loo xam bu ko demee rek politique de si rax. El Hadj ki wax c'est pas la première fois mu wax jëmale ko ci sëriñ bi. donc boo ma nee ger daf may jaaxal kan moo war a ger Cheikh Omar Diagne mu génn di wax. pas ñu ger Cheikh Omar mais wax ji nga xam ni wax na ko kenn àndu ci mais nag euh, dafa am ñoo xam ne dañ ci rax politique di si profito di si gaarwaale Jomaay wala état bi wala Ousmane Sonko te parce que sëñ Touba moom wax dëgg yàlla kenn rafetluwul kuy jël ay wax yu ñaaw di ko teg ci kanamu sëñ bi. ndax sëñ bi dafa nekk koo xam ni yàgg naa ay noon te lépp lu yàlla amul yonent bi amu ko rek sëñ Tuubaa bëgg ko ndax sëñ Tuubaa xeexam bépp yàlla du ko bind ba pare boole ko ay noonu waaw sëñ Tuubaa nag mën na karamam man ginnaawam waaw kenn rafetlu ko nekk mais nag chaque jour lépp lu am da koy teg ci yoon bañ ciy dugal affaire politique bañ cee wax état parce que Sonko euh, yoonam nekku ci waaw euh, kii Diagne li mu wax ay waxam la ay wax. la war na génn wax ak sénégalais yi. man Sonko. Sonko lu muy génn di wax Sonko. Euh, Cheikh Omar Diagne fa la fare yéen ko fal. Cheikh Omar buy wax ay waxam moom. ca palais de la république. bu ñu jaawale parce que Sonko yoram nekku ko si Sonko ñëpp xam nañu ku fonk man ànd naa ak moom Touba këru diine yëpp këru soxna yëpp dafa dugg wane yar walla teggin teggin jël alalam joxe àddiya ñëpp bëgg ko. Sonko du wax wax ju ñaaw du def def ju ñaaw xam nga parce que xamu ko waaw moo tax ma na la li si ginnaaw lépp ay politique la waaw loolu la daal nañu jéem a daal xoolaat suñu bopp. ban position ngay xaar ci état ci wax ju mel nii Cheikh Oumar Diagne yëkkati ko. ah yoram nekku ci yoram nekku ci état li ñu war mooy xëy na woo ko yedd ko ni ko jàdd nga yoon. ñi mel nu limogé ko. waaw loolu yëpp mën naa nekk loolu yëpp mën naa nekk parce que Sénégal moom. nit ku nekk ak euh, li mu gëm da nga koy bàyyi ak li mu gëm waaw nga jàpp si yow li nga gëm parce que yàlla moo ñu sàkk moo ñu bind mais teewul tey ñu koy def lu ne moo fi ëpp yi noon yonent bi waxi nopp kon nag euh, nañu delluwaat daal suñu kii daal delluwaat ginnaaw daal te xam ni am na wax joo xam ni moom wax dëgg yàlla rafetul te man rafetlu ma ko mais daal li ma la mën a wax moom te mën la ko wax mooy politique bi euh, da cee rax trop trop trop trop trop parce que ay noon rek a nekk ci ginnaaw di appuyer wax di buux di wax. nga xam El Hadj noonu ci ginnaaw kan la ñu nekk vraiment man daal loolu wax ji lënt na ma quoi. ci ginnaaw wax ji dañ nekk. ginnaaw wax ji di profité ci wax. kii def euh, euh, kii sa sëñ Touba du question dañoo bëgg sëñ Touba di ko défense ñoom dañuy wax pour. Euh, jël tuumali taqal ko Ousmane Sonko wala taqal ko état bi te état bi seen yoon nekku ci si Omar Diagne yàgg naa wax ay waxam yàgg naa wax ñëpp ni tekk kon nag tey bu waxee ñu jëngal di wax lu nekk lu ci ñor lu ci ñorul xëy na am na ñu nekk seen ginnaaw ñoo xam ne ñuy gën a aggraver wax ji même wax ji bu garaawee xam nga doo bëgg rek ñu dal ànd ak dal te xam ne sëñ Touba mën na karamam mën na ginnaawam. sëñ Tuubaa kenn xamu moom ku ko xam xam ni yàlla boole na ko ay noon yu ëpp doole omal Diagne te seen mujj mujj ñëpp ko gis kon nag bu mënee génn tuub na génn tuub moo moo moo gën daal bu ko defee fekkee bëgg na jàppale état bi na génn jégalu mu jeex ñu continuer suñu liggéey. Euh, El Hadj Rafet ndax jàpp nga ni euh, gouverner euh, boo xamante ni da nga koy gouverner di am ñooy xoqatal ci wàllu impôt. wala bokk di ñaar seen loxo ci wàllu impôt particulièrement lu jëm lu jëm ci patron de presse yi sonnoon trop ñu leen di envoyé ay message wala boog di leen wax ne da ngeen war fay nangam ay millions ci wàllu impôt ndax jàpp nga ni wàllu fiscalité rek la ñu mën a gouverner mim réew ngir bëgg ko développer ndax jàpp nga loolu. waaw non boo tubaab bi seen dëkk di tax mu avancé ci wàllu impo la parce que nit ki moom wax dëgg yàlla war nga am xel boo xam ni. Euh, lépp ma war nañ see bañ a fekk war nga bañ a xaar sa ba ñu lay yónnee ne la lii kat yaa ko war a fay parce que impôt dafa bokk ci loo nga xam day doxal réew. singali patron président. non parce que waaw non singali wuñ leen sax mais dañoo bëgg a indi jub jubal jubbanti te loolu boo ko bëggee indi foog nga tegaat mbir ci yoon ñu bàyyi guerre bi xam nga teg mbiri ci yoon parce que loolu tamit mooy doxal keesu état bi. dina tax tamit baadoole yi ñi sonn sama classe gii ñu feebar bëgg a faju aussi ñu mën a faju parce que état du foofu xam nga eh, ñu bàyyi diw sama xarit la lu ma neex laay def. alaaji rafet bu fekkente ni xale yi eh, liggéey ci entreprise yu mel ne ci presse bi boo leen xoqatalee entreprise ba tëj ñu jël gaal gi dem dee ci géej gi ndax solution la. non loolu yëpp lu ci am mais daal li ma la mën a wax mooy. loolu li ma la wax ma ne Europe ma nga fa ñu nga fa. tubaab yaa ngi liggéey di fay impôt duñu ko foye sa oto foo génn gaare ko da ngay fay te taxul tubaab yi dem ci géej gi patron yi ñi nga xam ñoo yore njiit yi ñoo war a yërëm seen bopp yërëm ñi ñuy liggéeyal parce que boo ubbee dara teg ko ci yoon da ngay da ngay am xel bu dal ni li ma ubbi yàlla dina ci def barke mais nag ubbi loo xam ne wax dëgg yàlla yow li nga war a fay fayoo ko lépp nga jël dugal sa poos ñi nga ñi nga ah, ñi jël sa mënoo leen a fay fay boo xam ne fay bu baax la wala ñu fayu ci wala ñu gis seen bopp te Sénégal loolu fi am koo ci gi njiit boo gis ma nga yore loo xam ni ka muy liggéeyal yoru ko waaw kon nag ñoom doxul ñu yoon fekkoon sa dañuy def kii te di leen fay salaire yu baax ñu mën a wax waaye yow liggéey ñi lay liggéey nga bàyyi leen ñu sonn yow la ci ëpp nga dugal sa poos xam nga di noos ak di tambaaw la mais état bi keesu état bi da nga ciy war a dugal parce que loolu mooy jëmale réew karam mais du question da ngay àkki moo dara rek dugal sa poche di lekk loolu tamit du yoon parce que Ousmane li moom jàppale ñu rek moo ko tax a jóg Ousmane jàppalul boppam dugalu ci poosam dugalu ci poosu soxnaam wala muy poosu rakkam wala poosu magam Ousmane li ko ñor mooy liggéey te ni mu toogee moo lay wan ni Ousmane liggéey ko moo ko ñor amul kii jàppoon na ci Pastef dama lay def lii dama lay def laa parce que moom noonu la ko yàlla bindee xam nga kon nag nañ ko jàppale ñu doxal Sénégal bu boobaa ñëpp gis seen bopp ma daal loolu laay message boobu daal laay. ba léegi désespéré di jël gaal gi di dem solution ba léegi amagul jàppoon na ne bu nu amee régime bu bees solution am waaye la xewoon daaw moo xewaat ren gis nga mbuur li nga xam li nga xamante ni moo fa xew barki démb xaw ma démb euh, ndaw ñi lu mat cent personnes ñoo dugg ci gaal trois personnes la gis. ndax euh, lu jàpp ni solution dina am ba tey wala boog ndaw ñi lan nga leen di mën a wax boog nu toog alaaj solution mënagul am parce que mii bi ñu réew mi léegi ñetti fan la mat waaye nag mais neex bu baxee xeeñ ah, mais mi dina mi ngi baax te bi ngi xeeñ xanaa kay dafa fekk rek ñi ko bay xeeñu rek ñoo ko xeeñcu mais li mooy sama way bi ma génn rek Ousmane a ngi togg nañu muñ léegi mu ñor askan wi nañ tey loolu rek moo si am solo xale yi tamit nañu. moom li ngeen di toggee këriñ wala matt wala gaz. non gaz nag Ousmane ah, nag gaz. gaz amu gaz. non bu ñoree rek neex barki ah. sëñ Touba seulement réew mi nag ñëpp xam ne li fi nekkoon ah, non non Ousmane ba fekkee réew moo xam dañ koo yàq fekku fi dara mais laaj na mu xoolaat affaire yi xool du si nekk nu muy tëddee hmm. xam nga tegaat ko ci yoon incha allah man li ma la wax maa la ko wax Ousmane li ko ñor nelawul guddi nelawul bëccëg li ko ñor mooy ni muy def ba Sénégal. ñëpp gis seen bopp loolu rek booy problème am koo xam ne du nelaw guddi du nelaw bëccëg. léegi mi ngi nelaw léegi mi ngi nelaw. nelawul sax wallaahi nelawul yow yéen da ngeen a xamal Ousmane. barke Sëñ Touba Ousmane amul dara caaxaan barke Rasulullah du gaa yi de xamul pàccoo xamul kii yooyu xamul ko moom nekkul ci bopp bi sax da koo xamul barke Sëñ Bamba Ousmane ku ànd ak moom ngir intérêt da nga ko bàyyi parce que li nit ñi gëm-gëmu ko moom li mu gëm mooy liggéey seet. sénégalais bu nekk lépp luy yëngu gi gis sa bopp loolu moo ko ñor noonu lay noonu lay seet muy ministre am yëpp képp ku ci dem yaa ngi yor sa sa sa sa sa classeur dañuy liggéey ci duusi sa ci biir du duusi sa dañu ciy liggéey moo na ni ñii ñu ngi liggéey loolu rek la wallaay El moo tax mu génne clip euh, daal di ci euh, way wala bokk wax ci wala lancé benn message jëmale ko ci euh, lu jëm ci presse bi Euh, euh, euh, kii journaliste yu ñuy ger wala boog patron de presse yu ñuy ger lan moo a loolu. waaw noo xam nga réew bu yàqoo journaliste bu jubul moo ko yàq taskatu xibaar bu. journaliste yu jubul. bëri na fi bu dee du ma tudd tur nag ko damay toog yow daal bokkoo ci te Pape Ngañ sama waay bokku ci mais dafa am journaliste yoo xam ni mën naa ne sa àddina sa boo moytul troisième guerre mondiale bis buy amati. faux journaliste bu jubul moo ko indi parce que am na loo xam ne rafetul nit fay la ngay bind nit loo xam ni du jikkoom wala defu ko yaakaar naa ne alal jaru ko te leneen jaru ko moo tax nag bi ma woyee morso bi ma ni aussi euh, bëgguma journaliste bu ñuy ger bëgguma ko xam nga moo tax ma woy boobu xam nga di ñaan rek képp ku ci dëng tamit yàlla jubal la nekk léegi côté bi nga xamante ni moom la jël ngir jàppale ko état bi mooy képp ku attaqué état bi moom comme baat bu ne xalaam dalay woy euh, di tontul état loolu la fi érage ne léegi ko non état bu deful lu yoon ñu wax ko parce que ñun ñu fi état yàlla nañu fi nekkal ak askan Ousmane Sonko bu juumee ñu génn wax ko parce que loolu mooy dëgg parce que nit ku ne war nga xalaat sa bàmmeel parce que àddina jeex na nit ñee fi ñee ko rek di tëb tëbi. moo tax bu ma gisee nit di def yenn yi damay jaaxle parce que àddina bi dara desitu fi àddina bi jeex na barke rasulullah jeex na xam nga kon nag li si des nañ ko rafetal xam ni Sénégal ñoo ko moom coow leeg def ñu bon yeeg dara jaru ko fi nañu jéem a booloo ñu liggéey suñu réew xam ne suñu sët yi wala suñu doom yi bu ñu màggee wax dëgg yàlla mën a jëriñu ci Sénégal mais nag mu ngi mel ni rek nga jaaxaan di saw sa bopp rek ngay tooyal te Sénégal yu bëri loolu moo leen dal man xaw lu leen dal xaw ma lu ñu leen a xabtal xaw ma xam nga depuis Sonko Jomaay jëlee réew mi ñoom toogatuñu lu leen ñuy génne génne dem nañ ca bay euh, filmer benn dex boo xam ni dex bu yàgg la ñu naan gis nga dëkk baa ngi nii ndox maa ngi nii di bël ab dex pour wax la rek Sénégal yi dañoo war a toog noppalu ko parce que Ousmane Sonko. lu toog noppaliku tafal sunu président bu bees. voilà bi yéen ko mën a jàppale jàppale ko mooy du ay wax fii muy defar ñuy jéem a yàq parce que Ousmane Sonko dafa nekk nit koo xam ne lépp lu mënul woon yonent yàlla Moussa dara du ko mënal dara parce que noonu yi mu fi mu traversé yëpp ñoom bu ñu amee xel xool ko di ñu xam ni kii du nitu kese xam nga parce que yàlla boole woon na ko ay noon yu leen ëpp doole fuuf mu rëcc ca kon nag ñoom dañuy soloon seen bopp xam nga nañu bàyyi coow lii bàyyi wax ju bëri ji bàyyi seen yi ñuy def ñëw ànd ak moom liggéey Sénégal xam nga moom bu ñëpp la tàllal loxo moo gën yi ñuy def muy liggéey ñuy jéem a xëpp suuf ak defal ni ñoom seen bopp rek nañ koy def parce que yow gaal goo xam ne yaa ngi si te bis bu suuxee doo ca mucc say njaboot duñ ca mucc kon rafetalal loolu moo am solo ma ñëpp laa yemale Ousmane Sonko keneen ak keneen ma daal li ma ñor mooy nañu boole suñu bopp nekk benn liggéey Sénégal mu am solo yàlla nag mooy yore wërsëg yàlla mooy yore wërsëg yàlla mooy su la El Hadj ci eh, régime bu bees. ah man de bu ñu ma defee conseil rek baax na ma defee bu ñu ma defee conseil rek. Ah, <laughs> ah, ah, Seye Diomaye. ah waaw mun cee ñàkk nag. xam fit boobu. ah am naa fit woowu de xam nga àddina li fi nekk mooy euh, di wax président dëgg. naan ko fii lii na mel fii nii na mel waa bañ koo raay raayal bu ko defee dina mën a xam te dina mën a gën a liggéey mais boo nekk ci kanamu président rek lu mu wax nga siiñ ak di ko tàpp tàppal xam nga loolu président yu bari loolu moo leen gaañ. loolu rek la waaye bu ma jëloon conseil de soxla naa ko waxtu wi so xaw naa sonn soo <laughs> taay xaw naa sonn de. waaw mi ngi noonu la woon ah El Hadj rafet ngeen gën ko xam eh, eh, ci fare ci Sonko mm, bokk ci Pastef waaye tamit aussi ngeen xamoon casquette bu njëkk bi mu soloon waaye léegi léppam rek mu doon Ousmane Sonko bokk ci parti Pastef moom la amoon tey entretien dañu koy bàyyi mu tàggatoo ñu daal di jotaay waaw li may tàggatoo rek mooy di ziar Abbas Fall mi nga xam ni barki rasulullaay bu ñëpp meloon ni moom Pastef dina am jéego yu am solo parce que moom chaque jour mu ngi ci ginnaaw Ousmane sunk bëgg Ousmane Sonko bëgg Jomaay bëgg projet bi waaw mu see ñàkk léppam kon nag Abass Fall maa koy ñaanal fi mu bëgg a yegg ci projet bi yal ko suñu borom yeggalee ci barke yonent bi lépp poste bu mu bëgg ci Dakar rek yal ko suñu borom jox ci ziar ak ci baatin naan ko nag chaque jour rek yow ca kanam rek xam ne kenn mënul ci yow dara waaw xool xool bàyyi jéem jéem ba moom. muy jël message ak di tontu message. Abbas jël message Abbas. liggéey bi la yenn saa yi diw man kay daan Jibi Gueye Ndiaye dama ko daan boo jot ko mais jotatuma mais am na amul. protocole. protocole garaaw Jibi <laughs> ku baax mais amatul jot foog nga comprendre leen. Jibi nag mënoo ko jot. Jibi nag yow tamit yenn saa yi président Ousmane Sonko da ay mission xam nga muy di ñëw amul jot amuñu jot Sénégal ku ko nekk doo am jot wax ji bëri na. coow li bari na fi mu ne fa ñuy xaar Ousmane Sonko yan na bu ñu ko fa gis waaw noonu fi ñu koy xaar yan na bu ñu ko fa gis yan ko suñu borom may ndam ci li nga xam ni téye na ko senegal ak fi nga xam ne bëgg na fa yeggale senegal mook jomaay yan leen yàlla may ndam yàlla may leen kàttan képp ku leen liggéey wala nga xërëm leen yàlla dellu ci yow ñoom daal yàlla nañu am jàmm rek parce que bu ñu amee jàmm rek réew mi am daa jàmm incha allah. ñu ngi lay béggee ci disponibilité bi ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ci Sénégal 7 jaa ngeen jëf.